asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax a baax a baax comme ni nga ko xamee nag Equivox moom Vox Arena ak làmb du mën a ñàkk comme ni ko gars yi waxee rek xeex bi du jeex parce que loolu bokk na ci li nga xam ne nii euh, lu ñuy xame la maanaam làmba tey nag dafa am loo xam ne ni lu spécial la loo xam ne euh, combat la bu bees buy doog a taxaw bu am ki nga taxaw la boog bu yàgg a taxaw boog waaye xam naa daal lu bees la muy kan Boy Jules mi ngeen gis école Falaye Balde ak kan Kelemaso nekk euh, ah waaw Grand Médine mboolo exactement waaw kon moom defe naa ne moom mu ngi ci zone bii parce que Grand Médine moom mu ngi fii kii jóge Pikine mu mel ni ñoom ñaar la seen combat taxaw ñu war ko bëre mois de décembre ki ko tëgg nag di ki ñuy wax faatu Balla xam naa nag moom doomu banlieue la tamit nekk doomu fi nga xam ne ni moom mooy euh, zam-zam ak jàmm gën ak zone yi ko wër di jigéen joo xam ne nii vraiment ku bees la kuy doog dugg ci lam en tant que promotrice ñu ko ñaanal yàlla ñëw bu mu ñëw yàlla bu mu yàlla bu mu ko réccu parce que tamit jaar na ñaanal aussi tamit di ko encouragé di ko wax ne ko daal ah lii moom am na solo trop parce que gisoon nañ ne Ndeye Ndiaye Tyson ak ñeneen waaye tey vraiment bu gisaate beneen jigéen ñëw duggaat ci kuréelu promoteur yi fas yéene tëgg làmb du ñëw def lu dul di ko wax ka na dal ak jàmm di ñuy ki nga xam ne tamit moom la àndal ci liggéey bi mu koy ciy jàppale muy assisé bu baax a baax a baax kon balaa may jox mbëri ñu nuyoo rek li may def mooy jox soxna Fatou mu nuyoo Fatou maa lay ziar. di sant sa micro tuuti waaw julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur feddali suñu cofee ci sëriñ Babacar si est-ce que mhm. loolu am na solo Boy Jules bëgg naa la a mhm. baax mhm. yëkkatil kàddu gi bu baax. Mm-hmm. di ziar ñëpp mm-hmm. ak kasa euh, mm-hmm. baat yi nay jóg. waaw waaw na solo. promotrice bi kon ñoom ñëpp nuyoon nañu euh, di nuyu tamit ñu ngeen àndal euh, kii moom yàgg naa ko fa gis muy ànd ak Boy Zil nu mu tuddati sax sax xaw copé bi Adama Lo maa ngi koy béggee Adama maa ngi lay béggee di nuyu bàmba mais tamit ah waaw Bamba tamit ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax ah hmm, euh, ñu ngi nuyu Bamba di nuyu ñi ngeen xam ñi ngeen àndal ñëpp Pa Omar tamit ñu ngi koy bëggee di nuyu ki ci des ah Sidi. kon si di tamit ñu ngi lay bëggee di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñoom ñoo accompagner ñi tey ànd ak ñoom lii nag bu ngeen ko gisee ça veut dire que dañu bëgg a annoncer combat bi pour mois de décembre léegi nag li may njëkk balaa ma ñëw sax ci datu combat beeg yooyu parrain beeg yu mel ni ki noonu ak moom faatu damay gis ñu naan Fatou Balla Gaye parce que man bi ma aas ne Fatou Balla Gaye Fatou Balla lan mooy faatu Balla gay loolu di faatu Balla gay ji da ngaa sant Balla Gaye da ngay supporter Balla Gaye wala lan la. waaw laa sant. ba kon pël nga. jaamu séeréer. séeréer yi maa leen moom. ah ba Fatou Balaye dafa nekk benn jigéen bu gëm làmb. Mhm. bëgg làmb. Mhm. bëgg timit Balla Gaye 2. bëgg Balla Gaye 2 loolu comme ça doon naa di ko supporter fu ma toll. léegi nag ñu dem ba koñ ba yëpp naan Fatou Balla Gaye bi moo demee di tëgg mbapat yu ma yóbbaale tur bi. Mhm. ñëw arène tamit comme moom sama champion la rek. mu indaale tur bi waaw. parce que am na solo kon da nga doon tëgg ay mbapat biir euh, euh, fële. waaw si commune Diamaguène Sicap commune Diamaguène Sicap Mbao quoi. waaw kon daal li nekkul loo xam ne maanaam arène ngay door a dugg si mais làmb ya da nga ko da nga ko mbapat en tant ay mbapat. waaw damaa mbapat. Mhm. soog a ñëw arène. mais maa ngi soog a dugg arène ren. yaa ngi dugg même ba pare maanaam def nga ci lu yaatoo yaatu foofu daal. waaw waaw. Mhm. tey yan mbër nga ma ma nga ma mën a wax ne ma bëri nañ ci mbapat yi nga doon organisé yoo xam ne am nañ tur tey nga gis leen ci làmb ñu yóbbu woon mbapat dañ koo dindi bi ñu demee arène. arène yan beneen tur quoi. Mourou Baye Fall rek moo ci téye turam ba léegi. day bëri ci journée bi day bëri ci journée bi. Mhm. Mourou Baye Fall. Mhm. Euh, en tant que soxna. Ah, làmb ku ne xam ne moom lu metti la lan moo la xiir ci nga bë maanaam nga dugg ci tëggal làmb waa gëm-gëm la hmm. xam nga tey ji loo boo gëmee bu fekkee benn jigéen nga kese ci seet biir hmm. sax boo ko gëmee da ngay dem waaye sama xel day dal bi yenn saa yi damay gis sama moroom jigéen ñuy wàcc ci terrain bi mais bu doon man kese laaj seen biir mi dinaa dem parce que bëgg naa ko gëm naa ko bëgg ko gëm nga ko mhm. aha ah, ba il faut ma taxaw tamit ci kenn ki nga muy Balla Gaye 2 nga doon supporté mhm. ba ñu nag koy dàkkentale mhm. ah Balla Gaye lan nga gisoon ci moom loo bëgg ci moom en tant mbër ba tax nga ko doon supporté ba mu jaral la ba nit ñi daan la woo ba nit ñi di la wooye faatu Balla Gaye 2 lu mu lu mu lu mu visé bëtam rek da koy def te man damaa yor jikko boobu moom lu mu ni lii laay def rek. dana ci dem daal waa dina ci dem. ok waaw damaa sopp bëreem torop. balla. Mhm. am na solo. Mhm. Euh, Fatou jàng na école. déedéet. Ah. jàng moom Fatou commerçante la. waaw. ci euh, looy jaay. Moussa muy defar ay ngegenaay di defar ay fleur. di jox jigéen ñi ay bëccëg. Ah. dem ba créer benn GIE ci koñ bi muy GIE Serigne Babacar si est-ce que. taalibu Serigne Babacar Sy. waaw mhm. ah, moom laa gëm. borom bonnet carré bi. Mhm. ah Mbaye Sëñ Mansour. moom de laa gëm ak Serigne Cheikh Al Maktoum. <laughs> ak Al Amin. ak Pape Malick Sy. aywa bu ma daanee yàlla yàlla yokku leen te taaf ñu si barkeem. amiin di nuyu njabootu Tiwaawoon yëpp. amiin rawatina xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour. amiin waay di ko ñaanal yàlla gudd fa nag wér. waaye tamit di nuyu ki nga xam ne nii mooy Serigne Moustapha Sy. ah borom Mourtasidina wala Mourtasidaat di nuyu Mourtasid yëpp. di leen ziar di ñaanal jàmm. di wax que ne gis ngeen Sénégal a ngi noonu. Mhm. Ah, am na solo léegi eh, loolu am na solo Boy Jules yow defe naa bi ngay mujj laam ji fii Jax moo tëggoon sa làmb yow ak ku nuy wax si tabu Saloum keroog fi ngeen defee signature contrat fee ca Bayal eh, Vox eh, Equivox su bële. mu tàngoon lool ngeen bëree nga ñàkk yaa ngi dégg yàlla dox ba nga amaat ko combat tey tey li nga jël xam nga ko ki nga jël xam nga ko ak enjeu bi ci nekk est-ce que xam nga ko. waaw sant yàlla. est-ce que muy nuyu Baye Fall yokkal kàddu gi. Baye yëpp. waaw kullu kuy Baye Fall. Mhm. ngi nuyu waa Touba Mbacke yëpp. Mhm. yàlla na fi yàgg te ak sa waaw la rek pressé nga làmb daj pressé gi moom mënta sotti parce que da ngaa jël adversaire ngeen bëri nga ñàkk nga jóge ca uh-huh. xam nga làmb moom ku bëri doo daanu uh-huh. nga jëlaat adversaire bu ñuy wax Clémenceau uh-huh. ma ne ndax la la cay xaar xam nga ko ak fi nga jóge est-ce que xam nga tamit Clémenceau mii nga lekkaat avance am la xaw ma ko war a def rek ca war a def lu la ci war. li ma ci war lépp mooy entraîner. waaw ñu def ko ci. ci cadre supporter ci cadre préparé entraînement lépp. Mhm. dañ ko ciy def ndax Gilles moom yaakaar naa ku ko xam-xam ne du ko ñàkk fayda ci làmb. du ko ñàkk fayda. Mhm. adversaire bi xam nga ko. adversaire bi non xaw ma ko mais am na ay combat yu ma seeraan. kon kay yaa ngi ko bëgg a xam. waaw non mais loolu mënul ñàkk. Ah, parce que dañu ma Clémenceau. xam boobu booy ne leen diw noonu la mais nag. biñ la indi avance am insisté woo quoi. non man mosuñu ma indil avance ma ci insisté. surtout ci moom dara naan noo li ma ci am mooy. Mhm. yàgg diw la. ma pare yàlla xam na ko. billaahi loolu laa ci am. Mhm. yow tamit bu ma ñëwee si yow. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee gan euh, fi nga nekk ci écurie bi nga nekk muy Grand Médine mbooloo mhm. muy nuyu waa Grand Médine yëpp ndax bu ñu tuddee Grand Médine mhm. suñu xel day dem ci Yékini Junior le grand champion mhm. ndax defe naa ne doomu Grand Médine la ah ay ñoom ndongolo ay brise de mer ñoo ñëpp defe naa ne ci zone boobu lañ dëkkee tey yow tamit nga nekk seen rakk wala xale dëkk ci gox ba jël yow itam li ma laaj ci laa lay laaj de kii ci defet la jóge de yow foo jóge ci lan nga mujjee si defet laa ilaha loolu dina doy waar de. kon combat bi Ronaldinho moom mujjee daan. ah Ronaldinho mu moom mujjee daan dëgg waaw. Ronaldinho ca Ibamar. combat mbay Yékini mhm. mën a bëre. ko ah, boroom ah, mhm. léegi kon yow kii ah, dina yomb. loolu la ñuy mu yomb mu yomb de la ñaan. Mm. bés ba lu ci war koo xam ne ci ku defet mbër mu jóge ci defet su bëreeg mbër mu amoon defet ni moom moom wax na ko si biir wax làmb la des fois da ngay làmb daj des fois doo làmb daj hmm. mais dañuy ñaan hmm. le 18 décembre suñ làmbee daj xalaat nga dina daj di nga daj moo tax ma ne la dañuy ñaan le 18 décembre waaw loolu mu non man su may wax dama bëgg xam nga ñaan moom waaw hmm. saa bu ñu xëyee ñu ngi ñaan waaw jullit lañu ay taalibe lañ ndax Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. tudd nañ fi suñ Babacar si tudd nañ fi waa kër Cheikh mm-hmm. nañ fi ku nekk kon ça veut que Sénégal noonu la tëddee en miniature mais dama bëgg ñu wax ci cadre sport bi ñuy waxante Babacar si àdduna ba daj laa la neen la koy indi mooy dàq bëre soit ëpp doole ëpp fit loolu laa bëgg ñu dugg ci ku ëpp doole yàllaa ko xam wallaay ku ëpp doole dàq bëre ëpp fit yàlla la sunu borom may ndam man daal loolu la bëgg wax bi jigu leen jigul ñaan jigul waa Pikine ñun waa Falaye Baldé bu ñu ko waxee jëf ko yoo xam nga li ma ko ñaanee ma daan xam nga li ma wax ne yàlla nga yàlla nga làmb doo yóbbu yàlla nga daj te doo yóbbu bu ñu ñaan est-ce que yaa ngi dégg moom kay xolante ji du du du yee nii non moom na ne na ngeen ko defee du leen ji ñun déggoo ne ma la xaw ma daa ma sa dugg Pikine xaw ma man xaw ma ba xam mos naa dugg Pikine bëral naa fa formaan Pikine waaw te lii heure bu ñu demee signature lii la ñuy wax. waaw non ñun man ak yow ku ëpp doole ku daax bëre. ku ëpp doole ku daax bëre. te dama leen daan ku ëpp doole daax bëre. déggoo li ma la wax non déggoo li ma la ma fu muy aw. daa ñëw ci quartier bi rek. waaye kër gi am xaj yëpp dugg fa daa tëb jéggi. barke borom Touba ci kattanu sunu borom bu jour ba incha allah man maay lëmbe. <laughs> <laughs> micro bi moo saf suukar dafa mel ni si moom de. kenn ko lekk. bu muy saf suukar. dafa mel dafa saf suukar kii wax ak moom man nga war a waxal. ku gën a soxla ndam fukki junni yoon. man ngay waxal bu wax kii man a yëpp kenn yow laa waxal. maa la gën a soxla ndam fukki junni yoon. vraiment ma dëkk la ak fi jógee ak li ma def si làmb. sëñ Fallou loo def ci làmb man gisuma ko. Mhm. man li ma war a sama diggante ak yow li passé passé na li war a xew laay xool. Mhm. sama diggante yow li ci war a xew mooy dama lay daan par la force. ci kàttanu Sëñ Tuubaa. le 18 yàggatul. yàggatul wax bu bëri du ma ko si def. li war ci combat bi dinañ la gis nga tey ji promoteur. promotrice bi kon du moins. Mhm. jaay combat am. Mhm. wax ak ay yooyu noonu. est wax kon da a wax. ñeneen mooy lan waxal mooy ñan ñeneen la ne ma wax ñeneen. lu may am yow laa koy wax waaw kon léegi lan moo tax nga ne doo wax. nee nga man a yow ku ëpp doole ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam. faal la boobu damaa jik te di nga xam ne le 18. di faal mais loolu ñaanoo ko. ñaanoo ko yow yaa ko ñaan. waaw man maa ko ñaan man maa ko yóbbu boobu damaa jig. daraa jig. waaw waaw bii dina la jigéen de. <laughs> loolu nga foog rek. bii dina la jigéen de. loolu nga foog booy zil. yaa ngi doog am combat. man ak yow <laughs> non man laa dëkk. yaa ngi doog am combat. mbërëg moo koy soog a wax. billaahi yaa ngi doog am combat mbër maa ngi a jaakaaru ma yaa ngi. moo tax nag mbër yi ngay doog am combat. parce que mbër nga da nga ne mbër déggoo ma de mbërëg moo koy musa wax bi ma. déggoo li ma la wax sama fukki ko yi mbërëg mooy soo ko wax. ni déggoo li ma la wax dix combat naa dix. déggoo li ma la wax huit victoire. déggoo ma la dama lay daan. yàlla baax na. est-ce dégg. Mhm. dama lay daan. yàlla baax na. yow woo soo tëddoon ba xaaj guddi ñu yeela ne la ba xam mun nga daan Clémenceau nga ne leen déedéet. mooy leen moom mooy kan. mooy ki nga xam nii rek. xanaa xamoon man barki Serigne Touba sa benn combat laa suivre. billaahi wallaahi wa muy combat bu mujj bi. Mhm. ndax ki doon bëre grand combat parcelle la dëkk. si laa demee stade kii ko. à loolu xaw ma si moom dara xanaa ñoo ngi daje nag groupe. daje nañ group WhatsApp damay gis photo. ban groupe WhatsApp. groupe bi Idaali. ñu ngi produit. moo la gën a xam ne jour ba du pousse du passe. mais kii nag ñu mel na la def. Babacar. Ah. li war si stade bi yëpp. sëñ Fallou Dieng jour ba doo pousse doo passe. <laughs> kii. est-ce que yaa ngi dégg li amul sens. man ak moom yëpp dañ bokk mélangeur. doo pousse doo passe waaw déglu ma rek du ma nekk fii di xaawi suturaam. xaawi sutura mooy lan pour yëpp xam ko. man ak moom lu war ah, waaw déglu ma rek du ma wax nu mu tudd. Ah, li war li war. dégg nga li ma la wax bu dee da ngaa xamul turam kon bu bëggee xam sama tur man mën naa koo wax. moom day déedéet nu mu tudd. non duma la wax nu mu tudd loolu man la ñor. déggoo ma de man la ñor. booy ñor lu ñaari karante. booy licence bi benn licence la. boo ne dafa am beneen tur. licence bi benn licence bu tur licence bu tur dëgg moo ciy nekk. bi. Ah, waaw licence bi benn licence la déggoo ma man moom dañu boo ko ménagère génneel sama tur. ménagère jox licence am jox ma licence am. man ak moom méttiwul. kon ñu muy wax fii tur bi yëpp amul sens. amul am eh, sens mu liggéey taxawal taxawal taxawal ngeen ko combine xaaral taxawal. mbedd mooy la dëkk ma dëkk parcelle. parcelle ak combi bi sama combat premier la faa gis man kay bàyyi rek ñu waxtaan man nan def lépp lu ma am si àdduna rek sama fit moo ma ko may ak sama jom bëréew ma bu may dugg ci su ma bëree trois combats te làmb xamuñu ma ma bàyyi bu may bëree sama troisième combat ci la ñëpp xam kan mooy Boy Jules te jom ak fit sama combat bi bi ma koy ñàkk max bi mu duggee ci làmb ji di ñëw dane Boy Jules nan la daane ñu ne ko dañ ko daan mu ne ah affaire bett na ma Père Max ñu koy nuyu di bu wér a wér di santaale sama papa Zil Bale bu baax mu ne lii da ko bett parce que foog woon parce que nee na Zil buy ñëw jom ak fulla ak fayda def ci làmbam. waaw mais sa mu ne na ko moom. kon da nga war na ko wax. ah surnom am Clément Jour nest pas Clément xaw ma Clément Jour waaw mooy surnom am turam dëgg-dëgg Serigne Fallou Dieng la. barki alqurani waxal sama tur. waxal sama tur. Ah. fii laa la ko waxee. waxal sama tur barki alxuraan karim xamul bu yeboo As joxaat la message. dara. man ku may bëreel damay dugg sa ba sa biir kër. sama kër soo fa duggee. est-ce que dégg ku may bëreel damay dugg ba sa biir kër. te ma parcelle chaque jour maay fa. parce que borom Touba. parcelle. parcelle chaque jour fa laay réeri jee sama nooy kii du réglé. ñi may jàppale ñëpp fa. PA ñu lay jàppale ñëpp mm. a fa. bon ay supporter ma ngi ngi parcelle. waxal ak man nga bàyyi mm-hmm. dina ci xam dara dina ñëw stade ba. maay duy stade bi. bu ñu nee parcelle. duy. maay bi. waaw maay baara lu neex. baara mbay bëkkate lu neex ñu bëre ma daan ko ñu xëy gars yi cant lu neex sant Serigne Touba. bàyyi faa li te bu ñuy déggoo li ma la wax déggoo li ma kii dina gis lu doy kii damay bañ sax sa combat am ëllëg mu ne Jules mooy mooy bëri gannaaw combat. waaw gar déggoo li ma la wax xam nga la laa koy ñaanal. na mobiliser. loolu dong laa koy man sama supporter rek leen a mën a téye. man loolu dong laa koy ñaanal. sama supporter mënoo leen a téye. te yàlla tax ak yonent bi waa Pikine laay wax. nañ la jàppale jënd la ay ticket <laughs> man loolu rek laa lay. saa mobiliser le stade bi rek. ma jàpp la daan la. amiin comme pare pare pour mobiliser. man. Ah. man dama pare bu yàgg. non pare woo ko yow mi may ñaanal pare woo. dama pare xam nga. ma man sama côté dama pare. booy ñun gis nañ say combat. booy gis nañ li ngay indi si stade bi. waa léegi da nga bëgg a tiñal sa bopp da nga sama benn combat nga mos a ñëw stade te da ngaa ñëw fekk mu duy ko ba mu fees. de. leer na yàlla ba gis nga samay combat ba pare nga ko wax sa benn combat non non dafa lànk gis nga affaire li ñuy wax da ngay déglu ñu déglu li ñuy wax dañ koy teg ci code ñu bañ a di wax loo xam ne ne amul na ma yàlla jégal uh-huh. da nga ne sama benn combat nga mës a ñëw est waaw xaar waaw déglu ma yow rek xëy léegi léegi da a xam nga kañ laa nii ba ngay waxaat kon yaa ngi may bàyyi xel man xamewu ma la woon ah. yaa ngi may bàyyi xel xamewu ma la woon non xaaral ma ñëw rek kii ma xamuma damay day day wax lu ko neex. maanaam dégg xamal problème problème bi. xam nga baaw ga nañ bàyyi. baax daa jàpp ne kaañ la. la demee nag. te dal na si ay moromam yu bëri. ñu foogoon na kaañ la. na kaañ dal na si ay moromam yu bëri. Babacar man dama doon mbër moo xam ne li may demee la Cheikh Fall waxoon rek lépp loo xam ne ñax koy may jomm naa koo ñaan suñu borom gëm-gëm laay demee te ndam lii ma am nii borom jom la bu fekkoon ku yaa fuus la du ma ko jël. barki maam Cheikh Rafal. mais yéen ñaar kan moo war a dàq bëri. man maa dàq bëri maa fut maa dàq xeex maa supporter maa dàq fecc maay daan bu soobee sant waa. barki alxuraani karim mbër yu gën a tapé Pikine fii si la bokk. ah xamuma bëri ma mbër yu gën a tapé. da dàq bëri ak kii xam nga ka laa na wax mu laaj na ko dem laaji Jacob sawaay moom ko dàq bëri sawaay na ko dem laaji sawaay déedéet man déggoo li ma la wax dafa ne moo ma dàq bëri na ko dem ma bi fees ma bindul luur mm. na ma laaj Jacob wala mu laaj ma sook déedéet na ma laaj Jacob wala mu laaj ma sook musul ndaje ak Jacob yàlla na ma yàlla rey yàlla mu ma am ndam si ku daan Jacob la daan de dégg sa dégg nga ma war a daan lii muy jafandu. mënul daan sa rob. waaw yàlla baax na. mënul koo daan yàlla baax na. xamal ni problème bi man xamal ma bëgg. xamal ma bëgg bu ñuy wax bu ñuy wax ñu wax sama diggante ak yow. est-ce que yaa ngi comprendre. mujjee bi la ki damaa xamul. non xamuloo mooy li ma lay wax. xamul ma bëgg gis nga rek kon ni nga ma waxoon. mbër bi kii lii la si am wax. maa lay ñaan combat bi li nga doon jàpp si combat yi nga gën a jàpp si combat bi nga gën a jàpp si combat bi kon ni nga ma ko waxee rek démb combat parcelle la Pikine la ñoom la si woo bu baax a baax Daouda Mbaw ñoo la koy woo ndax loolu nga ma ko waxee dër bi la. Daouda Mbaw Daouda Mbaw yow laay waxal jàpp ci boo waree jàpp la nga see war a jàpp boo jàpp la nga see war a jàpp kon jàppal bu baax a baax a baax a baax. waaw est-ce dégg bu baax. ñun amuñu daara mbaaw. mais ñun am nañ ay Baye Fall yu ndaw yoo xam dañuy jël seen juróom-juróom duñu ko jox. fii ñëpp am Baye Fall. est-ce dégg bu baax ay cadre. yaa ngi laa bëgg ñu génn. man cadre boobu laa bëgg ñu génn cadre laabu lañ nekk. ñun noonu lañ nan ma doon Baye Fall. bu dee Baye Fall déglu ma rek man. su tuddee sama tur rek xam na ne Baye Fall foofu la tàggoo. ndax ku tudd Fallu. kon mënoo ko génne si Baye déglu ma rek ku tudd Fallu déglu ma rek tur sama tur dëgg laa dem waxu ko waxuma tudduma Fallou dama ne sama tur dëgg waxu ko am na lu ca des léegi dama bëggoon euh, s'il vous plaît ma ñëw xam nga tey bu ñu toogee di waxtaan ci cadre làmb ngeen war a bëri la nañ ci génne kilifa yi Babacar non yi ñoom ñu ñoom la ñu Babacar moom la ñuy ñaan Babacar moo xam suñ mun tax xama ca Touba la yàlla na fa yàgg te wér mhm. Serigne Babacar Sy ma ca Tiwaawoon ka nekk Yoff ka nekk Medina Baye ka nekk lew na te nekk kër Cheikh Omar Fouti Tall cene ba ba ca suñu mbokk chrétien yi mhm. yàlla nañ fi yàgg téwé Babacar maa ma ma wax wax ji maa ma wax wax ji ñu fi toogee ba nuyu leen ba ziar leen ba sàkk ci ñoom ñaan mhm. dañoo bëgg na ngeen wax maa ma wax wax ji li tax boo doon ay nit ñoo xam ne ku ñu mën a romb dañaa la ah Baye Fall naka mu ku ñu mën a nuyu na la mais loolu parole la peut nit ku nekk da ngay am dégg-dégg comprendre nga mais nag comme que noonu la demee amul solo ñun lu ñuy wax lépp comprendre nga li ñuy wax lépp lépp lépp maanaam waxee woon ko ngir dara non xam naa est-ce que yaay comprendre Baye Fall la Baye Fall la moom Baye Fall pire hmm. mais ndax damay dugg TikTok di ko fa gis Baye Fallam dama koy seedeel Boy Zine man dama la déglu man nekkuma mbër mu soxor nekkuma mbër mu iñaan ah. damay ah. gis sa photo sa baay faal la dama la koy seedeel kon moo tax ma ne la cadre de Baye Fall ak Baye Fall ñaari Baye Fall suñu dajee dañuy génne Baye Fall wax si leneen fi ku nekk am na tarixa boobu wax li sax xamal li ma la nañ génne cadre Baye Fall wax si làmb ji. waaw nga amul solo. waaw léegi aar leen ma ñëw leen ma li nga tëgg métti na de. waaw parce que yow daa mel ni Modou Lo Ama Baldé nga indi avant première bi parce que kii doomu PA la. Grand Médine. Uh-huh. kii doomu Pikine. kii ne ci keppaaru ama kee man def mënta sori Modou Lo même buñ yi ñooy nekk chaque jour ak ñoom Papa Sow di leen ñaanal seen combat yi ñu jublu suñu borom suturaal leen defal leen ndam yow daa mel ni jaxasekat nga de yaa aas maag aas moom lu mu si door waaw parce que mooy ménager mbëri yi di mooy ménager mbëri mais combat bi Omar Saliou ko monté Omar Saliou mel ni mi moom monté combat yi de sama combat yëpp <laughs> Omar Saliou Euh, euh, maa ngi koy bëggee. bu daa am gan moo ko teree ñëw. non sama sama kera ndaysaan ñëw na sama kër. na bul jënd bul añ bul def dara indil ma ay xéwal yu doy wax yàlla na jàmmam yàgg. amiin waay amiin waaw maa ngi koy nuyu di nuyu waa Grand Yoff. amiin amiin sama rakk jooju tamit bi baax. teral nga ko teral nga ko. waaw ah teral nga ko. Omar teral nga teral naa ko teral ngoxo ko baax a baax. <laughs> wax nañu ko waaw nee na Babacar dem naa gàllam teral na ma. non moom moo fën di teraanga rek. wax sa mbaax yaakul si baaxu kenn kenn. Omar Sall ku baax di xale bu am solo. Mm. Euh, Fatou defe naa tey li nga tëgg ni ça veut dire ah, euh, mën na kopp sax tur coow. wala nangam mais daa mel ni neex gën koo neex gën koo saf xorom gën koo nar a metti moom du am. yaakaaruma ko nag non du po du mante ne lii combat lii. lii la gars yi wër ay ay gune nga boole leen ñu tolloo. Uh-huh. ki duñ ne kii yëg ëppale lii kii ëppale parce que ñii ay gune lañ. sama rakk ji monté wul combat bi. combat yi ñu monté yëpp dix combat bi amul bu mu ci def erreur mbër moo ci gis dafa dañoo toll. Omar Sall dama lay wax leen Omar Omar Sall dafay yàgg ci làmba Omar Sall man ba boobu téyeguma micro laa koy fekk Afia FM mook di eh, balax yàgg na de mu nekk booy bu tuuti Omar Saliou daa tarbiyu moom euh, euh, kiiwul de nuñ ko waxeeti bokkul ci li nga sam andi de dafa ñor tàbbi waa moom daa ñor tàbbi xam nga ñor tàbbi xam naa ñor tàbbi moom daa moom kenn gaasé ko Omar Saliou wu ko noonu la demee moo tax moom ay combat moom lu mu la ci jox moom Modou Anta sans frontière mhm. ak booy yooyu ay ñoom set euh, beneen bi mhm. ah Euh, booy xaarim Anta mhm. ah ak xaarim Anta Seck mhm. ñooñu maam làmb moom dañ koy dund moo tax combat yu ñu monté rek mhm. day neex parce que xam nañ xale yi mu mel ni kon yow itam am nga méritant ah, macha allah lii drapeau bi drapeau kan la waaw drapeau bi mi ngi nekk euh, drapeau monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall nekk maire commune jàmm Diamaguène si Mbao di ko ñaanal rek deuxième mandat ndax dafa liggéey yaa fa dëkk de maa fa dëkk maa gis benn mandat la am ñu am ay làmp am police am mairie sam-sam kenn ñemewu fa woon dugg timis sam-sam waaw kon léegi kon ñi xëccoo mairie bay bu ñu toogee xam ni dañuy falaat suñu baay faal bi deuxième mandat insha allah waaw Ndofène moom moom drapeau bi moom moom drapeau bi waaw lan lañ fa mën a xaar bis ba waaw lamb jë comme mbëri ni ma leen gisee miinu ma leen Omar Salim moo leen miin mais ni ma leen gisee daal xam naa dinañ bëre te dinañ mobiliser insha allah mhm. combat yi mu monté yëpp ay mbër yu am jom lañ Mm-hmm. Mm-hmm. gisuma ci ku yaafus daal maanaam. Mm-hmm. minuma leen nag mais ni may leen di gisee noonu. yaakaaruma ñàkk a mobilisé. bu ñu gisee làmb parce que làmb ku koy def faw nga xaalis. kon daa mel ni Fatou am na ci lu mu toog. jii tooguma ci dara nag. ah kay ah, <laughs> bàyyi li ngay def sëñ Babacar si ñaw say ngegenaay. waaw ah. gis nga fay zil. Ah. fay jox kii jox ah. bu ko bàyyi nga toogoo ci dara waxal ci li nga toog. tooguma ci leen ma xam nga làmb amul sponsor. waaw sponsor de. waaw mi ngi nii nag waaye da ngay jéem nag rek ban maa gis nga maa ngi nii nag dama xam nga ni mbër bu ndaw di demee ba prouver wane boppam Fatou Balla Gaye noonu lay ñëwee arène nationale sponsor bu ma déposé benn yoon du ma demaat damay prouver wane sama bopp dinañ ñëw. pour ñoom ñu fekk si la. ñu fekk si ma Sénégal jëm kanam. ku si mel ni Aziz Ndiaye daal moom dinaa ko woon a ñëw. dafa war a ñëw waaw. maa koy nuyu di ko ziar. war a ñëw ci journée waaw kooku day ku baax la. Ah, ah, waaw kooku dama koy bëgg waale di ko wax sama papa ji combat bi sa combat la. waaw moom da ciy jàpp bu baax a baax. daa bëgg waaw daa bëgg waa Fallaye Balla. ñëwal jàpp ci bu baax day ñëw sponsorisé lamb ji sax incha allah Zador daa war a ñëw ci lamb ji. macha allah loolu am na solo léegi kon daal macha allah xam naa ne léegi ñu jeexal affaire bi euh, li may def balde mooy damay dikkaat si ñaari mbër yi xëkkante wax nga dàq bëre jaag dàq xeex ja waaye daa mel ni combat bi Modou Lo Ama Baldé rek maanaam moom daal mooy commencé fi mu nekk nii. waaw waaw làmb ji commencé na bu yàgg. waaw làmb ji commencé na bu yàgg bii dafa commencé bu yàgg te gaa yéeguñu ko moom mi dëgg làmb ji sax la xamul woon ne làmb ji commencé te yëg ko yàgg na am na loo xam musu ñoo waxtaan man ak moom <laughs> man ak ñoom musu ñoo waxtaan kii kii ñu ngi doog a toog jaaxal damaa fan boo sil damaa suivre damaa fan dama bëgg loolu xam nga day am si mbër man waruma woon bëreeg moom yàlla xam na ne lekkuma woon avance déglu ma déglu ma xam nga dama koy seedeel champion ah, <laughs> musuma ko seetaan benn combat laa ko seetaan li ma la wax de mais waruma woon bëre ak moom hmm. ki mu waroon bëre ak moom dafa dem ba si biir aw na mu dafanteeg promoteur yi mais waruma woon bëre moom man feebar mu njëkk ba laa waroon bëree si Covid ba laa waroon bëree la cinq laa waroon bëree mais ay góor lañ hmm. duñu waxante sunu moromu gor su bàyyi ñun duñ bàyyi moo ñu téye ba léegi ba joxal ñu boy sil aller retour ji. aller man de. waaw damay daan Boy Jules tijjil Modou Lo porte yi. boo daanee Boy Jules ubbil Modou. Modou porte yi. mu la Boy Jules daan su ñëwee day daan. mu la Boy Jules <laughs> yi dañ ko tëjal kon. <laughs> Boy ma daan dégg su ma daanee xanaa porte yi dañ koy tëj xam na ne kon Modou Lo Ama daan Modou Lo. dégg nga li ma la ci Ama Balde Modou Lo. dégg nga la ñuy wax Lo nga ma laaj du. Ah, waaw parce que mooy buntu bi mooy. mooy buntu bi. daan Boy Babacar dama koy daan. waaw si kàttanu yàlla dama koy daan. boo ko daan da ngay jox Modou caabi. dama koy jox caabi bi du ko tëj de dama koy aal caabi bi su defaraatee ba pare mu aal ma. Hmm. dégg nga de nana da lay daan jox du caabi ji mu dem ca Ama. waaw di nga nangu lool. waaw c'est que gis nga di bëre koo xam daa am gëm-gëm dafa neex. Hmm. waaw maanaam peut-être du xalaat nit ñi di nekk ci xolam rek te yaakaar naa nit ki di xalaat di wax. nekk sa xol nga koy génne di wax. xalaat de baax. Eh. mais mais li mu wax ci Modou. ñu ngi woo ñëpp. ak Ama. déet foofu balaa ñoo woot. di woo Ama Baldé bu di ko wax ni combat bi sa combat la. signé na sax damay dem événement pour gaa yi xamaale ko. Hmm. comprendre nga kii comme li muy wax rek xaw ma daaw da mbaa xaw ma zil wax la ci am ak yëpp damay wax damay jëf ci kàttanu yàlla. du puus bu doon match la du puus du paas. mais Pikine parcelle mag suñu dañuy làmbu. Pikine parcelle bi. waaw Pikine parcelle moom euh, Modou Ama Boyzil Kélé Mansour hmm. da doon neex sax ñu def ko Boyzil ak Modou Lo pour ñu xam ne waa Pikine duñu dara ren ñun ñoo aaye ñoo moome. dégg nga waa Pikine duñ dara. xam nañ ne Pikine duñ dara. moom xamal na ko boppam. waaw baax na. xamal na ko boppam waa Pikine duñ dara. Babacar dañuy woo Ibou si combat bi. kon ni mu defoon bu njëkk ba jàpp na si bu baax a baax a baax Ibou dañ ko si woo est-ce que comprendre grand la su ñëwee dafa war a ñëw su ñëwul dafa war a ñëw Modou ñëwal Ibou la ñuy woo Ibou la ñuy njëkk woo soo ñëwee da ngaa war a fu ñu nekk soo ñëwee war a ñëw bokk di fenn boo ñëwul da ngaa a ñëw sama papa père ba Modou ñëwal di woo sama papa père ba li mu doon daf loolu loolu doom ak papa la ah. moom dama naan ko lu war si doom rek na ko si daf di woo sama papa papa saw di ko wax làmb ji sa làmb la kon ni nga ko doon defee sa làmb yi dañ lay ñaanal la cinq nga tijjee affaire yi di ñaanal Tapha Mbeur combat bi mu jubli sunu borom may ko ndam moog Ada di ñaanal Tapha Leer mi war a bëre suba sunu borom may ko ndam ay aatu commencement bi dama waroon jaale sunu benn mère sunu yaay boo yi muy Ibra maa ngi koy jaalee yaayam jooju bu baax a baax a baax moom dafa génn àdduna barki démb la ñu waroon def jaakaaro yi su ma juumul bi ma faatu boole woowee ma ne ko damaa am dese ñoo ngi koy ñaanal maire Yacine Ndiaye fu mu jógee fu mu dem yal na ko yàlla gën yal na yàlla yokk ay leeram yal nañ ko sut ay fan di ko jaale waa parcel bi ñëpp surtout ma inte 16 di ko jaale ñëpp looy tàggatoo rek waa may tàggatoo rek mooy li may wax rek di woowaat waa parcelle bu baax a baax di leen wax combat bi seen combat la Pikine ak parcelle rek la Modou bu ndaw la ak Ama bu ndaw rek ndax ñoo koy war ne ñoo war Modou loo bëre la vingt cinq pendant presque une semaine waaw di ñaanal rek waa parcelle bi ñëpp nañ ñëw mobiliser ñu dem dafari Boy Jules suñ fa jugee dafari Modou ah hmm. jugee dafari fi Ama comme nga li ma la dafari Ama Modou lañ koy defari li kay kii gëmul waa Pikine ah, ah, kii na li ma koy wax ba weer man Pikine laa juddoo ah. Dominique laa juddoo baax baax si combat bi love love mu ngi siy jàpp baax love watkat bu nekk parcelle la mu ngi jàpp si combat bu baax a baax boobu daa dëng de aale xebulal waa parcelle kenn dara aale time ñoo ngi koy waanal koova bi kon yi mu doon jàppee si koova bi koova bi gën si raw di si woo Bamba ñaa baax a baax a baax moom chaque jour reer bi tegee na ko côté reer bi waaw chaque jour waaye mu ngi nee chaque jour ah, ku mu jaayul iPhone yoroo iPhone ah, ah kon kay man léegi ma xam nga Babacar ma pare jox Bamba gis nga iPhone bi ma àdduna dañ foog ni àdduna dañ foog nii gaa yi xaalis mooy àdduna. xaalis du àdduna. ni da ngay ànd ak moom te ànd te yàlla tax. gis nga lu andi turu Clémenceau ba Clémenceau dugg si làmb moom ah. bi mu ji moo tax. Bamba Niang moo tuddee Clémenceau. moo ma tuddee Clémenceau ñoo àndandoo doon bapat ba léegi nii. Ah, mu ne ma daa doon kenn dàq fi bëre. Ah. mënoo lim mbër mu ko fi dàq bëre. parcelle mbër yi ñu fi coow yëpp tëñ bëree arène daan na leen. comme comme li ma la ko fee yow toogal seetaan waaw. moom xam nga nit moom sooy ut utal ko nite ah. mooy loolu chaque jour suñ gisantee suñu gisantewul chaque jour sama reer day ñëw te joor la nekk joor marché joor joor munoo taxaw fenn te doo laajte ah, ba ma ñaa iphone te duñ la fa yóbbu nuyu taala iphone ca joor moom itam taala taala iphone ah taala la taala maa ngi koy nuyu taala taala looro noonu la demee. Lamine Talla. di ñaanal sama adversaire jàmm. waaw di ko saako si man tamit jàmm di ñaanal promoteur jàmm. waaw yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm. ngeen ma bàyyi waaw waaw sunu làmb yëpp promoteur la ko tëgg. dara mooy loolu. Mhm. Boy Jules sandaat yàlla rek di waxaat jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di sant suma bu baax a baax di sant suma staff ku si mel ni Djili Diouf nga Fallou ñoom aara gaa yëpp ñoom Paa man ñi ma àndal ak Sidi ak Mor sama fils xam di sant di waaw di sant ñëpp quoi xam nga di di ci woo Amadou jara maire Pikine Nord ko wax combat bi sa combat la def ko na nga ko doon defee dañoo bëgg jënd nga jënd bloc yëpp ñu ñëw mobiliser du esat ba mu fees waaw di ci woo ma ngay sekk comprendre nga adjoint maire Timbo di woowaale Timbo bu baax tamit di nuyu waale Fatkine doomam di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ni ku ci mel ni Isaaxa ñu ngi koy woo ci kombaa bi comprendre nga ñu ngi koy woo ci combat bi moom it ni ko wax ni combat bi combat am la ñu ngi leen di woo maam Thierno iPhone moom it ñu ngi koy woo ci combat bi di woo xam soq sama gaan sama fils maa ngi lay woo ci bi sa combat la waaw. di woo ñëpp waa Pikine yëpp. di woo ñaar ñëpp lay jàppale. di woo Bousse yëpp. soq xanaa man moom ñëpp lay jàppale la jox parole de. ah comprendre bu baax. Eh, la. di woo Lamine Gueye Fallou Gakou ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp képp koo xam ne yaa ngi Pikine di jàppale jeune yu xam nga ñu gëm seen bopp rek ñu ngi leen di woo ku ci xam nga ku ci mel ni tey ji waa marché zinc tey jii ñooñu aw ma seen fay. marché zinc barke alxuraanul karim ñoo tax namm ma pombiteer. laa ilaaha illallah ndam namm ma pombiteer namm ma dara damay frit ba waaw. xam di sant géwal yëpp. waaw géwal yëpp maa ngi leen sant di sant waa ngéwal nag. ngéwal. ñooñu maanaam tey jii bu doon mbër mbër baasam foofu sama baas ñooy sama lépp géwal gi waa kër dut kende comprendre nga waaw waa kër mbay doon day ku ci mel ni sama yaay ndaak njaay maa ngi koy siyaar bu baax di nuyu waale ñoom Fatou Mbaye ak Ndeye Khoudia Tabara Cheikh Mbaye ñoom Aline Digo ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen siyaar bu baax bébé aji comprendre nga di woowaale fans club bi di woowaa Touba nag waaw ñooñu moom faa ma balaa may def Touba damay jaar Grand Dakar woo Modou Mbaye bu baax 2STV maa ngi lay woo di la wax nga jàpp ci combat bi. Modou nit la xamante nañ man ak moom sama nit la. mais di ngeen ngi ñëw ci drapeau bi yow na sa xol sedd. di nga bëgg di nga kontaan barki maam Seera Fall di sant di ko wax combat bi Fall combat sa combat la combat bu ma yittewoo la te xam naa ne sama yëf sa yëf la ñu la ciy woo bu baax a baax a baax. di sant waa kër sëñ Modou Bousso Dieng yëpp soxna yàlla si la waa kër sa kër sëñ Kara si lay ñu ngi leen woo bu baaxa a baax a baax sëñ Kara Kaldoom ñu ngi lay siyaar bu baax di la wax combat bi sa combat la sant nañ ñëpp di wax tamit xam nga comme tey ji kii sunu jigéen la ñun ñoo ko war a mën a jàpp soxna Faat Balage ñun ñoo ko war a mën a jàppale parce que tey ji làmb dafa met gis nañ li ci nekk ak mbër yu toog bëriwuñu moom presque ñaar toog wala toog na benn at wala bëriwul dafa metti te imaginal yenn yaa koy defal sa bopp tey jii kii jël alalam ñëw jox la jox ñu ko mhm. kon ñun lu ci mën a am rek nañu rayante donte nag yoruñu mais am na ñoo xam ne yàlla boole nañu ko ñoom mhm. kon dañuy ñaan yàlla defal leen jàmm ñoom ñu ñëw jàpp ci bisu Fatou Balla Gaye bi drapeau bi nag Ndofène mi ko moom Ndofène drapeau bi sa drapeau la loo ci def rek sa bopp nga ko defal comprendre voilà jàppale Fadou te parce que avant ñuy dugg Fadou am na lu ma wax loo xam ne nii bugguma sax di ko wax lu doy waar lu daw yaram mhm. kon affaire yi sa yëf la ñëwal jàpp ci mbër woo ñi ko war ñëpp yooyu jàpp ci bés Fadou Balla Gaye kon ni mu ko waxee rek dañuy woo ñëpp mhm. ñu ñëw jàppale bis bi mhm. bis bi dafa war a mun a yaatu di si woo Moustapha Kane bu baax a baax a baax Moustapha kan borom parcelle ñoo ko si woo di si woo maam jaxumpa combat bi combat am la li mu doon daf di jënd ay bolok na si bii gën a raw waaw waaw may ma benn may ma ñaari nit rek dafa koo xam ne ni bi may ñëw léegi moo ma jox añ bu doy waar muy jooja séeri aadama ma lay añ bu doy waar séeri aadama comprendre dafa am benn jigéen boo xam ne dama ko ci woo soxna asu afia dañ koy woo moom it mu ñëw jàpp ci combat soxna asu afia combat bi sa combat laay laay bi moo ma jox añ tamit léegi nii bi may ñëw ah, dama ko faate ah ku nekk añ lañ ba de <laughs> ay joroon laa laal barke Serigne Touba Mbacke yaa <laughs> laalu normal xam nga di sant gi ma ko jox Assane seeru yàlla bi di sant aarama mooma sëñ sel tey maa ngoy bëggee bu baax aar shop yee am na solo yow Jordan nga laal kee moom dóor caayam moom Baye Fall maa bi lañ laal ah? ay taalibe lañ ah, kon di mu nekkee taalibe lañ nekkee taalibe am na solo soxna Fatou yow tamit euh, gars yi ngeen may ñu ah gars yi soxna yow looy tàggatoo ak rendez bi looy mujj a wax say maanaam looy mujj a wax askanu làmb et puis tamit fi nga xam fi nga ñëw tey ñu dalal la fi mu Equivox TV tamit gars yi s'il vous plaît fi nga ñëw tamit ñu dal la fi tey mu Equivox bi lan nga leen di wax par rapport ak liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci waa comme ni ñu dooree woon rek noonu la ñuy tëjeewaat mhm. santaat yàlla bu baax a baax mhm. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour mu yàgg fi lool te wér si ah, feddali suñu cofeel ci sëriñ Babacar si di woon nag axlu làmb bi yëpp mhm. ñëpp nag mais nee nañ ragal péete dafay xañe wërsëg. waaw père maa ngi koy woo. père Max waaw. tonton maa ngi lay woo ci sama journée bi. Mhm. di ñaanal Fallou Ndiaye. Fallou borom mhm. bii mu jëm. yàlla defal ko ci ndam. Mhm. bi waaw waa ca yàlla defal ko ci ndam. <laughs> yàlla defal ko ci ndam ak euh, sutura ndax organiser dafa metti te ndegam ñun jigéen ñi ñoo góor ñi ñooy sonn waxatuma la ak jigéen ñi di ko ñaanal daal ndam sama mag la sama xarit la moom su ma waxee moom xam na man xam naa dara boolewuñu ku mën a sonn ci bisu jàmbur waaw kay di ko ñaanal rek yàlla defal ko mu ndam mhm. di ñaanal ménagère yépp mhm. waaye nag rawatina As Cissé As waaw moom mi nga xamante ne bi mooy ménageur yu ñaari mbër yi waaw di ko sant bu baax a baax ci jàppale bi di ko hmm. gërëm macha allah defoo defoo As daal mooy des fois da nga koy bi mu As doo ko jot téléphone moom day sone rek day sone rek day ah. moo tax taalibe Cheikh la <laughs> day allah am na solo waaw wérdu moom daa daa di woo am na solo trop Abdou Aziz Alé Ndiaye ndeysaan Aziz waaw dafa war a jàppale faat bala Dieng ndax nee nañ gën a jege gën a yey. gën a yey te ñoo bokk sëñ Babacar si. waaw waaw ba pare nga bëggaat mbërëm ma di. ba pare tamit may supporter Omar Sakho Balla Gaye 2 maa ngi lay woo 18 décembre. na ci dugal loxo loo ci mën. waaw na nga ko ci def. Balla. Sa Thiès maa ngi lay woo commissaire. yow xam nga ma xam. ñoom commissaire ñu ngi lay woo 18 décembre nga ñëw jàpp Pape Ndoye ñu ngi lay woo ñu ñëw jàpp famille yëpp suñu leen dee lim du matale. ah gaa yëpp ah, am na solo. kon noonu la demee woon gaa yi dégg ngeen ko kon defe naa ne lii am na solo trop combat la boo xam ne combat espoir combat bi nag li ci metti mooy ñoom ñaar ku ci ne ci défaite nga jóge Clémenceau Ronaldinho moo ko mujj daan arène nationale Boy Zil Siteu bu Saloum moo ko mujja daan ren fa nga xam ne nii moo di ca SBM Iba Mar Diop kon defe naa ne ñoom ñaar ku ci ne combat bi moom daanu ci dina metti ci yow trop waaye nag le père Max Mbargane di wax ñu koy nuyu di ko ziar ñaari ndamay dugg mooy benn mooy génn moom bu du ñàkk bu ñuy génn dinañ ne kenn ki muñal loolu faaw mu am ci ndax match si nil moom séntu wuñ ko ci yaa ngi dégg waaw loolu kon moo tax yàlla nañ fekk daal le 18 décembre di di encouragé waat faatu bu baax a baax a baax di ko ñaanal xam nga comme noonu mu ko waxee rek jigéen la mais mu ngi góorgóorlu te lii tam dañ ko soxla kon Aziz comme ni ñu koy waxee suñu soppee ah suñu waay al amin ah faatu woona la kon ñëwal jàppale ko te yàlla rek tax parce que tamit jigéen la te day góorgóorlu bi ci des mooy yéen a réew mi yéen a bokk Sénégal yéen a bokk tamit Serigne Babacar Sy Balla Gaye 2 tamit faatu woo na la ah ñëwal nga soutenir ko yaa ngi dégg Fallou njaay tamit dégg nga li mu wax ci digganteem ak Fallou Fallou itam di ko baax ñu ko ñaanal tamit journée la 31 bi yàlla na ko réussir ak bépp promoteur bu nga xam ne sumb nga làmba yaa ngi dégg kon daal loolu moo fi amoon tey ñuy nuyu ñi nga xam ne ñoo ànd ak mbër yi ah gunge leen plateau bi am na solo trop Balde maa ngi lay remercier vraiment liggéey bi métti mais yaa ngi koy gérer yow ak hélas mention que liggéey moom li ci am solo rek maanaam ñaq jariñu Cheikh Ibra Fall na ñaq teet kon ku ñaq da nga jariñu yàlla nañu yàlla dimbali ba ñuy nangoo di ñaq barke yonent bi sallallahu alayhi loolu yàlla nañ ci yàlla jàppale rek ba ñuy mën di ñaq rek ba nga xam ne lu ñu dund rek dafa ñuy lew di ñuy képp koo xam ne yaa ngi doon siifur rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi parce que amuñu seen yàlla na leen yàlla fay parce que chaque jour que jëfee ñu ngi ñuy woo di ñu bégee xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di ñaanal ñëpp jàmm di wax ka ba le 18 décembre xam na yeneen jataay dina amaat bu soobee yàlla ndax na remise de drapeau faw ñu def ko devant le maire Ndofène maire wu du mën a ñàkk kon gars yi ba beneen yoon incha allahu rabbi